Pape Alé Niang nag euh, weer gannaaw bi mu nekkee prison ba su bi nag euh, lañ ko war a déglu dans le fond ki ko war amal nag euh, di juge bu deuxième cabinet gannaaw déglu boobu nag ñu ko war a déglu ci xóotal ci mbir moomu ñi di ay avocat mën nañ ko sàkkul lii di liberté provisoire Pape Alé Niang nag dañ koy toppee daal joxe xibaar yoo xam ne amu ca ndigal wante it yor ay documents yoo xam ne sax ay documents yu militaire yi la te waru ko woon yor ak it eh, joxe xibaar yoo xam ne wérul Fadilou Keita gannaaw nag bi ñu ko defeeree ci euh, tribunal après mu am retour de parquet fi mu nekk nii nag dafa war a teewaat ci ki nga xam ne moom mooy procureur bu tribunal ñu ne bésub tey bii moom moom nag di Fadilou Keita nekk cadre ci Pastef nekkoon coordonnateur bi li nga xam ne mooy nemmeeku tuuru Ousmane Sonko boobu doon def moom nag ñu ngi ko teg loxo mercredi bi ñu génn gannaaw bi mu amalee ab publication ci lii di réseaux sociaux yi ñi nga xam ne nag ñooy ay di Eh, Pastef kon ñu ngay sàkku ñu bàyyi ko dëmm ci assemblée nationale Barthélémy Dias àdduna jëmale ci mbirum ñaari militaire yooyu eh, réeroon te kenn gi ñu gis néewam wala bokk ñi ñi dañoo réer te kenn ko ñu gis euh, néewam euh, moom nag euh, wax na daal ki nga xam ne moom mooy ministre de force armées di maître Sidiki Kaba na indi ay leeral ci boobu le mbir ndax moom Barthélémy Dias sax nee na daal dañoo réer moom gëm ko nee daal bu fekkoon ne dañu kenn ki daal réer wante mu ne mënul gëm ne ñaari soldat yoo xam ne dañ leen formé mën nañ àndandoo daal réer wala sax lapp ma kon kon Barthélémy Dias moom nee gëmul li ni mel te mu ngi sàkk kon ci kii di euh, ministre kon euh, Sidiki Kaba mu indi ci ay leeral xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy président bu Guinée équatoriale di Teodoro Obiang Nguema moom nag euh, démb la doon prêter serment gannaaw bi nga xam ne sax euh, fal nañ ko pour sixième mandat bu sept foofu foofule ci bopp réew moomu di euh, Guinée équatoriale bokk ci kon Afrique euh, centrale dëkk boo xam ne sax ñoom li tax ñu am ay koppar moom mooy pétrole bi nga xam ne seen suuf ba am na ko. déggoo bi nga xam ne nag euh, fële ca Soudan euh, euh, signé woon nañ ko fa te ñu ko amal nag di Union africaine ak IGAD ak ONU seen digg ak ñi nga xam ne ñoom ñooy soldat yeddee nguur ga loolu nag dafa am ñoo xam ne ànd ñu ànduñu ca ñu ne seen xel. sax da ca dalul muy ay civil yoo xam ne sax kon démb dañoo génnaatoon di manifester ci mbedd euh, xartum ya ñoom nag nee nañ daal euh, dañoo wóoruwul ñi nga xam ne ñoom ñooy militaires yi ne sax est-ce que dinañ respecté kon euh, yooyu les accords nga xam ne signé nañ ko wante itam ñi nga xam ne ñoom ñooy ay victimes ñi nga xam ne dañ leen faatoon wala ñu rey seeni ñooñ ci lii di manifestation ya dañoo njort ne kon mbir moomu du mujj fenn xibaaru bitim réew it benn ponk lay doon muy nag diggante Chine ak Arabie Saoudite ñoom nag dañoo signé ay contrat ak accord lu toll sax ci vingt huit milliards doro ci li nga xam ne nag moom mooy wàllum énergie ak nag mbirum pétrochimie loolu nag ñu amal ko démb si jamono yoo xam ne sax njiital réew Chine di Xi Jinping mu ngi amal ab tukki foofule ca Arabie Saoudite moom njiitu Chine bi nag mu ne daal dafa bëgg a gën kon partenaire partenariat muy daal jokkalante yi nga xam ne am na ci diggante réewam Chine ak euh, royaume bu Arabie Saoudite xibaaru sport lañ koy jeexalee gannaaw bi amalee nag euh, ab noppaleku bu ñaari fan bésub tey bi quart de finale coupe du monde bi dinañ ko amal euh, foofale ca Qatar mu am nag ñaari affiche yoo xam ne match yu neex la nar doon mu ngi diggante Croatie ak Brésil wante itam euh, Pays-Bas ak ñii di waa Argentine lii ñu ne tey ci xibaaru kon tamit seen teewlu dinañ jox dig daje ëllëg jaa